de. maa la raw ci loo maa ah, nga def de baax na moom nii rek nga def. waaye ma def yéefee ci seen ah, de bëgg naa de. waa nii rek ngay taajoo sa ndogu nag. de kontaan naa ci yow. Ah. doo dégg erreur moom. waaw yow de man damaa bëgg yee ca sombi guddi sombi bëccëg. Mhm. ñànkata ngoon. ci weeru koor gii. yow seen njëkkee nga xamante ne benn jigéen doom nga ci kër ga ñu waroon kon de kontaan naa ci yow. feer naa ci yow loolu waaye. bokk ci ay nat maa ba njëg bi ay natt lañ ci bokk. di dugalanteeg waa koñ ba. ay cent mille deux cent mille. fekk bu baax duñ ko def. yow sa sa kaas yi sax dafa rafet. macha allah. lii laa xam. ñoom nag ay potu weñ lañ lay jox. ngay naan. tay ka jaa suñu kër gi moom nee na seew de dañu yee tey ëpp na moo tax ñu ngi ne copp maag yow ala waxaa moom bu fi nekku kër gi day wér moo tax ñoo ngi seet wala ka jaar ci pot bu rafet dara lay wax sa wujj waaye moom moom ku moom loo am rek moom war na koo am moom lu xam ne seen waa këram ak ñoom waa këram duñ mel ndax yow seen waa kër dëgg neexul dañoo yor xaalis moom moom nag maa moom a yem pauvre la mooy pauvre moom nag lu ko teree gëm yàlla waaye moom loo yor rek war na cee yor di rey boppam sama sëy bi ginnaaw yàlla yonent bi sama waa kër ñoo ma ci jàppale lañ may jox la ma yor moom laay jël di def pour jéem a sëy moom man moo ma gënal lépp lu ma am ci sama àdduna lépp loo gis ci àddina rek sëyee ko ëpp solo waaw ah, war na koo xam ne man da yomb na waaye en daal wahi bewir béwér nyar ñaar mun moom nee nañ mes rek dematu ñoom daal ñu mel ay tey na naar rek ñoom invité len ndogu rek ñu abandonné ñu nii total lese ñu nii ñu vidd ñu top maag yam waaye yàlla baax na ñoo xam ne damaa sama toog tey baas parce que ko woon tegal ndogu mun mes demee na man de ma content ci yow mom de bébé lay wax ñoom de buñ mënee seen jëkkër ni jooy seen langage rek day rey nit content naa ci nii macha allah Chérien toog. ah maa ngi toog ah man de kontaan naa ci ma sees yow maa gën a dem. ah bébé de maa ngi koy soog a dégg waaye ñii bu melee seen jëkkër yi de nijaay ngay dégg nijaay yow. ñu yàgg yooyu. may meeri jëkk yi bébé doo de ma ne ñii daal man daal doom bi naa. salaamaaleykum. waaw mais doom yaay. mais nangu naa la. léegi daal na ko góor yi ngeen. waaye naaj soo dee nga def tey. ça va. mu naka bagage sunu. waaye ñu ngi nga fa ñu ay borom baax lañ ki nga ko ah kii du mama. Binta bébé la. ah. du mama Binta bébé <laughs> kon yow tey da nga am gan quoi. tey dama am gan kon da xam. sama rakk la. Nah. ah kon mama nga moo doon génn ci suba tàggu naa mama yow tey xam naa la mama ndeysaan. dañoo woon sax xam nga wax ne du mën a waaw mama waaye moom moom da ngay ree ba tax. yaa ngi toog. mama ngir yàlla. waaw yéen koor lañ nekk. seen jabar defaral leen ndogu. ngeen topp ci fu ma dem ngeen dugg fa mama. tey em bàyyi am leen say kàddu. léegi màgg na bàyyi na yooyu. ah bàyyi na yooyu. mais booy con da nga xam kii. sama rakk la yow boo ko ndey bàyyi. lim la fi waxal. lu xewati. déet waay. moom de. bu yow nga fas ñaari soxna yi. est-ce que waay. ay papa. lan la wax. parce que nee na suum bi lan lañ lay toogal. dégg loolu. suum bi. ay papa. waxam la. waxamal. non attends buñ nee moo jël naa nga mën naa ko miin mais moo wax. attends bon wax ak moom man dama sonn ci kii booy. maman ngir yàlla maman moom maman tey nag dama bëgg rek ñu waxtaan quoi wax ma tey lan nga bëgg ma defal la ko maman nga bàyyi fen gi. maman boo yërëmul sa bopp boo yërëmul sa bopp yërë yërë yërëmal say mbokk ñi nga bokkal gisoo fa fenkat gisoo fa déglu ma ma wax la ba ma pare gisoo fa koo xamante ne nii mu ngi dugg ci lu yoonam nekkul yow bëgg xëy xëy rek saa yoo xëyee di fenal nit ñi di yàqu deru nit ñi ngir yàlla wax ma lan nga bëgg ma defal la ko nga bàyyi fen yi ngay fen mama lii ëpp na tamit quoi fu ma jaar ñu ne ma ana seen fenkat bi. waaw maman kon yow li fi wax yëpp di dëgg. kee nag. kee kan kee. sa waa ji moom ndekete li mu fi jot a wax yëpp da ko jox jox ñi ñaari jigéen yi wax lu si yoonu ñettal. yàllaa ca jëkkër ngay waxal. waaw boo fenee nag nit ñi waxal la ko. du yaa fi nekk man bi ma ñëwee loolu laa la njëkk laaj maa waxoo fi lu ëpp ba yàqoo fi deru kenn. tekkaaram bi naka jekk ma xam ne day nettal. donc yaay bu dee loo ci mën na nga wax ko ci man dama sonn ci moom. eh eh, eh, eh waaye yow nit ñi di wax yow ngay ubbi ay mburu eh, ah,